jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara eh, di santaat Serigne Touba bu baax ginnaaw bi mu nu defalee xéewal ñu tàmbul liggéeyam bu réy bi nga xam ne sant nañu ko muy santale ko yàlla ñu tàmbale ko ci alhamdulilahi ci bismillahi rahmaani rahim waaye di ko bëgg a jeexal nii ci alhamdulilahi rabbil alamin mooy cérémonie officielle bi nga xam ne sëriñ bi daf koy taxawee waaye ànd ko ak le ministre de l'intérieur eh, général Jean-Baptiste mu doon jataay bu mujj bi nga xam ne moom lañuy ñuy mujj amal ci màggalu Touba gii di màggalu 2024 gi mu doon liggéey boo xam ne nag fa mu tàmbalee sori na ndax ma nga tàmbalee ci ay réunion ñoo yow xam ne comité d'organisation bi amal na ko jaarale ko ci itam ci commission yi nga xam ne aju nañ ci biir comité bi kenn ku ci nekk liñ la dénk nga def ko liggéey bu am solo boo xam ne ni ko sëriñ bi bëggee taxawee nga ko noonu waaye ànd ko ak autorité politique yi nga xam ne ñoom tey jii ñu ngi doon accompagner liggéey boobu te di ko mottali waaye daayira Muxaddamatul Xidma itam di liggéey liggéey bu rëy ci jumaay Tuubaa ji ngeen gis wormay jumaa ji fi ñu ko jëlee ak fi ñu ko indi mu doonoon loo xam ne ñun ñëpp fii lañ daan gis daan ñu fi fekk ñuy dugg ci biir jumaa ji di gis ay nit yu def loo xam ne ci biir jumaa ji méngoowul ak bërëb bi méngoowul ak worma ji bërëb bi yeyoo loolu yi daa daayira Muxaddamatul Xidma taxaw fexe ba jële fi loolu waaye itam yemuñu ci sàmm wor may jumaa ji waaye liggéey bu rëy bi nga xam ne ñi ngi koy liggéey itam ci biir comité d'organisation boobu lenn lu ci nekk di loo xam ne lu ama am solo la te itam lu mëntoon a ñàkk la ndax lépp lu jëm ci wàllu accueil yi hébergement dafay loo xam ne daayira Muxaddamatul Xidma ñi ngi koy liggéey ci biir euh, comité d'organisation boobu te di ko defe itam ci anam goo xam ne bu ama am solo la mbooleem kuy gan foo mën a jóge ci àdduna bi boo ñëwee ñoom ñoo lay dalal ñoo lay accueillir ci anam yi mu gënee kon loolu yi lépp dafay dugg ci li Serigne Touba doon ñaan yàlla naan ko waq di xawaaija alladina daamu fii xidmati wahab lahum maaraamu na nga faj aajo yi ñi nga xam ne seen yitte yëpp dañ koo jëmale ci di ñu liggéeyal saa su nekk waaye itam na nga faj aajo yi ñi nga xam ne te wutal leen ay kër ca biir aljanna mooy ñi nga xam ne dañuy xëy di sax dàkk di séq ay jéego ngir di ma liggéeyal loolu yi lu am solo la kon liggéeyal Serigne Touba rek a fi moom rek kii itam mooy li ñu dese fi li mat a jëf lépp sëñ bi jëf na ko ba noppi li am solo mooy ñi tënku ci lim ñu digal rawatina lim ñu dénk laataa mu fi bàyyi ko mooy ñu fexe ba xam lu suñuy farata buñ ko xamee ba noppi def pasteef ci di ko jëfe waaye fexe ba xam li yàlla di tere li ñu suñu borom di tere bu ñu ko xamee ba noppi ñu def pasteef ci di ko bàyyi loolu yi mbokk yi mooy li nga xam ne lu ama am solo la ci liggéeyub Sëriñ Tuubaa bi kon ñi ngi leen di ubbil jataay bi ci loolu bàyyi leen ak euh, caméraman bi muy sëñ bàcc mu dugg ak yéen ci yeneen liggéey ak yeneen interview yoo xam ne dinañ ko amal ak yeneen kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci biir cérémonie officielle bi salaamaaleykum